d'Ousmane Sonko de nous décider pour résoudre kaawu Madiambal Diagne exactement niki vendredi ñu ngi doon xaar euh, Madiambal Diagne foofu société urbaine mais moom nee na muy. non day campagne exactement calendrier <laughs> waa ji définir euh, ses horaires mais tout d'abord est-ce que temps de campagne am doit droit convoquer un candidat. bien sûr bien sûr. bien sûr Madiambal Diagne nee définir son horaire même campagne campagne campagne joxul candidat humilité candidat amul humilité ci campagne il faut que ngeen baye lolo candidat lan la am ci campagne. dama ne avantage. ne dama candidat lan la am ci campagne liberté d'égalité des chances le principe d'égalité des chances le le candidat le principe d'égalité des chances de tous les candidats ni que un yon daf permettre ñu battre campagne comme tout le monde ou alors retenir ki diw ou ki diw mu campagne. Ah, donc retenir oui mais on doit jàpp leen. dama né dang koy baye mu campagne comme tout le monde ñu bénéficier de tous les chances les mooy maanaam le principe d'égalité des chances lolu la candidat bi bénéficier mais concernant ñi ñun lu ñuy gis Sénégal ñi naan non damay campagne suma ma campagne ma dem wuy ji c'est comme si yo dama da nga am benen mbalaanel kiray bu le mur ci campagne bi bu tax mënu ken mënu la wo lolu amul fen té dama ne candidat bu defee bu defee comment dirais-je euh, nan nañ koy waxee mooy maanaam nga wax lu ne feng hmm. ñu gis ni que yow yaa ko wax hmm. flagrant délit voilà le mot li ma do yu ma do bu ma doon seet flagrant délit hmm. candidat bu defee flagrant délit mais dañ lay woo yoon da lay woo Madiambal Diagne luñ ko plainte ni moom moo ko wax daf ko wax flagrant délit la. daf ko wax. lu wax parce que avocat Ousmane Sonko yi dañoo jàpp ni que daf ko sosalaat. parce que ci ay sosalaatee la non lolu jarul may ñew ci lolu. non fallu lolu jaru ko. parce que day fen day fen ni. non non non non c'est les faits man man jom non man jom. Man est-ce que am nañ fait bu concret. non jomb naa ko wax non lu mu wax man lu mu wax man jomb naa ko wax fi. parce que man je suis une personne de valeur jomb na ko wax waxat fi day melni sa man mako ko wax Ousmane Sonko mom donc damay wax damay analyser les faits pour sénégalais yi xam ni que avocat Ousmane Sonko bo gisé gisee ñu ñu porter plainte ma jambal Diagne parce que dafa am ay sosalaate yu bees ñu mu sosal Ousmane Sonko lolu mo am mota avocat japp ni que bi yoon on va pas laisser le train passer dañuy profiter ci lolu résoudre son cas. Ah non woon nañ ko te mujjul. mais voilà. c'est ça tey ils ont décidé de passer en action. tey aussi. oui dama ne dama ne xam nga xam nga Madiambal Diagne xam nga Madiambal Diagne c'est pas c'est pas un intouchable au Sénégal. bu nekkoon intouchable ci jamono Macky la mais c'est une patate chaude une patate chaude ci jamono Macky la woon xam dafa bëri. ci jamono Macky la woon la nekkoon une chaude ci jamono Macky je suis d'accord parce que Macky moo leen protéger ñoom ñëpp mais jamono bii nii xamul ban la xam inant il connaît xam na tout. lan la xam lan la xam c'est pas un homme d'état am na ay secret défense yo xamante ne n'est pas accès c'est que il faut ngeen xam ni Madiambal Diagne c'est-à-dire que <laughs> il s'autoproclame pour celui qu'il n'est pas c'est ça la réalité il s'autoproclame pour celui c'est-à-dire que dafa jappé bopam nan lañ koy waxé ci baatu wolof daf ko jappé dafa jappé bopam benn nit bo xam te doonu ko doonul koku mais il dit oui il connaît le les secrets d'État il connaît c'est comme si lui Madame Diagne aujourd'hui c'est un homme d'État il n'est pas un homme d'État. il n'est pas un homme d'État c'est un journaliste. il faut comprendre que ni donne nekk ci période campagne non période campagne waxul waxul ni que waxul war ñu convoquer Madiambal Madia. non non non non non da ngay bay ma oui oui d'accord d'accord y a pas de problème nekk période campagne Ousmane Sonko chaque jour mu guen, tal c'est ancien régime bi wax leen lu ne compte mi milliard dem sax ba farba, Farba euh, bul sonu ndax tey su élection est passée du talati politique bay campagne Étant tant d'autres et Ouais. politique c'est euh, donner des coups mais aussi c'est savoir encaisser justement ces coups est-ce que <laughs> Sonko pare na pare na pour encaisser comme ni muy joxe exactement. mais Sonko Sonko yàgg na encaisser. depuis ci événement aji depuis ci événement aji saar lu ne xewoon na fi. parce que booba mi Sonko c'est lui Sonko mi ngi jéem a Cheikh Yérim Seck d'après les révélations de Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck mom nee na Sonko dako énal eenal et tant d'autres lan la def ba ñu eenal ko néna Sonko dako énal eenal bu fekk non xama nga foofu Madiambal ji ama Cheikh Yérim Seck fa Cheikh Yérim Seck moom lañ war a laaj ban problème la am ak Sonko lu am solo laay wax ni Cheikh Yérim Seck lañ war a laaj la sénégalais yi war a laaj yow Cheikh ban problème nga am ak Sonko mais c'est pas à Sonko qu'on doit demander Cheikh Yérim Seck la ñu war a poser question boobu ne ko Cheikh kaay yaa ngi nii waaw Cheikh ban problème nga am ak Sonko waxuñu ko. malheureusement ñu ngi koy invité ci plateau yi duñ ko poser question boobu. non de problème ak enfant. non mais c'est ça la réalité xam nga bu taxawee tey Sonko daf ma eenal. du am ay antécédents nga jàpp. non mais mais xam nga je nga boo taxawee Sonko daf ma eenal mais il y a des louches. am am am na lu Il waxul a des lu lees waxul nañu Cheikh Yérim Seck wax lan mooy problème am ak Sonko bu y a na problème ak Sonko. mais Irfan ñi jàpp ni ñoom euh, ñoom Alioune Tine étant donné. est-ce que yow Ousmane Sonko bu mu takkal loxoom si yenn yi. maanaam xam xam xam fàllu xam fàllu waaw est-ce que lu coow li bëri bëri bëri bëri bëri est-ce que mës ngeen gis Ousmane Sonko mu tontu Cheikh Yérim Seck bay naan Cheikh Yérim Seck c'est toujours Cheikh Yérim Seck qui par de Ousmane Sonko le mot pastefien muy def ni ay loxoom mel nii. dafa am lu mu téye lu tang <laughs> mënu ko ko correct correctement xama boy fen ça se lit dans tout ce cër yi yëpp ay répondre Boy wax lu dul deug da ngay gis ce cër yi yëpp yëpp yëpp yëpp dañuy répondre dina am Ousmane Sonko Cheikh dina am Ousmane Sonko dama ko xam <laughs> té am alors que Cheikh Yérim Seck musul xam Ousmane Sonko Ousmane Sonko li, l'homme pastefien li Ousmane Sonko la lañuy la lañuy la ci corniche bi feulé ci les élections de 2019 ak alors que Cheikh Yérim Seck ñun sénégalais yépp xam histoire bi l'histoire de date date de 2011 ñun xam nañu ku ñu japp ci bi ak la mannequin gambienne le mannequin gambien journaliste yi fa journaliste yi nek depuis jamono s'agit de qui donc nañu laaj Cheikh Yérim Seck ban problème la am ak Sonko. Ah. defe naa loolu wax ji mais c'est pas à Ousmane Sonko de répondre à cette question di laaj Ousmane Sonko ndax da nga am problème ak Cheikh Yérim Seck wala da nga eenal Cheikh Yérim Seck déedéet. alors mi ngi exactement. na Cheikh wax dëgg rek Cheikh na Cheikh wax dëgg bi alors mi non exactement par rapport ak li nga xamné ne que moo di wàllu bi si Miro ki nga xam modi, que moo di Madiambal euh, euh, à une arrestation du journaliste Madiambal Diagne point d'interrogation en tout cas une simple question au regard de la euh, descente ce jeudi madame Niki li nga xamné que jeudi dañoo amal benn ko descente exactement si ay locaux yu journal Le Quotidien doon seet ki nga xamné que moo di Diagne euh, Mme Lina euh, li euh, en effet, nous avons appris que les policiers sont venus chercher le patron du groupe Avenir Communication avant d'être informés qu'il ne travaille plus au niveau de la rédaction. Madame tout exactement, ces rédactions, bi. Euh, il, se, se, rendu au même. au domicile de Mathieu Diagne lorsqu'il trouvait sur place ou pas en tout cas la bi di samp ma euh, pour faire ko fa la bu nga a si que réaction bi laaj aussi loolu mais ce qui est clair euh, c'est que l'auteur le l'ONU de Madjaba Diagne informé ko que ni euh, jot convocation mais verbalement Madjaba Diagne nee na du li que convocation verbale euh, celle-ci doit être motivée par une note nee na note moo ko war a motiver que ni convoqué nañ exactement en d'autres termes il euh, y a un document qui atteste de sa convocation toutefois selon certaines informations qui nga xam ne que moo di Madiaba Diagne euh, dafa nekk en pleine campagne daal di koy investir quinzième si position bu liste jàmmat ñaari bu Amadou Ba moo waral nag mu ne ci mooy définir exactement euh, <laughs> son calendrier et ses horaires. xam nga fàllu man loolu. gëw loolu ah, loolu ah, gëw loolu convocation verbale ah, non non non non non non non Non non non non non soyons sérieux on est dans un pays sérieux la police ne va pas décerner à non non une convocation verbale hmm. la police ne travaille pas comme ça convocation verbale non non non non non convocation non non non non non ma non campagne non non non non non non convocation non non non Non, il y a deux non quand même c'est pas pas vrai moi je suis pas d'accord convocation verbale mm. non non non non c'est tout sauf ça mm. la police ne travaille pas comme ça c'est faux c'est faux que pourquoi tu la convocation verbale c'est faux as ni que ay la c'est de la désinformation c'est faux Amoul. madame tu suñ ko que convoqué as koy andi un document à caractère juridique muy wane ni que il a été convoqué ñu jokk ko jox ko ses avocats wala jokk ko mom la personne concernée mais convocation verbale ci Madjambal Diagne képp ku taxaw wax la ni que Madjambal Diagne a été convoqué verbalement ne ko waxoo dëgg hmm. waaw wax ko loolu wax ko il n'a pas été convoqué verbalement c'est faux mi ngi exactement. aussi des nax sénégalais alors c'est clair pourquoi des nax sénégalais. alors mi ngi euh Nous daal yi itam si avons ginnaaw mbiru euh nga euh Diagne sans plus tarder afin dañuy maintenant si euh, li